léegi jigi fii yoof nee naa la yoof dëkku làmb dëkku cosaan ñu ñëw fi ànd a ki nga xamante ni moo di caatu ngewal war a dajeek alias biram nee naa la combat bu nar a neex waaye open press bi commencé na ba noppi te dara xewagul kon yàgg ci kanam tuuti jël ambiance lépp loo xamante ni info la dañ leen koy tàggagal incha allah yàgg maar loolu ngay dégg moog lamb ànd neex na yàgg maar maar loolu moog làmb ànd de yàgg maar ndaanaan ñu gis na nga ñëw ànd ak sa doomu ndey sa xarit caatu ngéwël mu war a am combat boo xamante ni moo dox ci digganteem moom ak alliance biram alliance biram ne ko combat bi du may dara lu yóbbu waaj waa a ñaan ñu ñaan ko ndax combat bi du ngeen ci jëlee ndam waaw man maa ngi lay nuyu di la nuyu di nuyu waa yoof xam nga di nuyu monde entier di nuyu ñu ñuy seetaan di la ziar lu bëree bëri waaw dama lay laaj yow tamit ndax yoof xam nga ragal bu fi dëkk waa yoof amul ragal de ndax li ma gis tey jii ba si ma koo gis alliance biram dama koy wax mu ñëw sama doom nday daan ko mu ñibbiwaat ndax Baye Fall laa. yow yaakaar nga ni combat bi dina yomb. Euh, waaw combat bi mënul yomb ndax caat du bëre lu yomb xam nga ndax tey jii nii combat bi ko na si combat yoo xam ni moom la gën a ci carrière làmbam kon amul droit di ko fooye te caat yàgg naa dem guerre xam na bal biy jam caat du ngaaka yàgg naa dem guerre xam na bal biy jam. lan ngeen yaakaar ni moo leen may euh, ndam ci combat bi waa ñaar yëpp ndax làmb moom tey boo dem danga nga yóbbu bëre da nga yóbbu xeex nan koy ñaanal rek xam nga wax bu demee mu tey bu gisee buntu bu laaj mu dem mu dem bu gisee buntu bu laaj mu taxaw mu taxaw ndax caat tey jii nii nekk na mbër moo xam ne tey jii nii yoo fa koy bàyyi xel làmb nga koy bàyyi xel kon amatul droit juum dañ koy ñaanal rek yàlla defal ko ndam lan ngay wax supporters yi ak ñi nga xamante ni ñoo war a dem stade le 19. waaw nan mobiliser wu rek mbayaar yëpp xam nga nan ñëw jàppale caat xam nga yàlla may ko ndam yóbbu moom ku ñu xam xam ñu si mobilisation dañ leen di wax rek ñu ñëw xam nga teg lépp ci yoon yàlla defal ko ndam lu rëy rëy di lancer sama combat le 3 juillet incha allah maa ngi mbay xadaa di ci wo waa Yoff yëpp di ci woo ñëpp xam nga di wax nañ ñëw jàpp ci yàlla defal ñu ndam incha allahu rabbi. jaajëf Seck Ndaanaan jaajëf. Giri Boy caatu mer laay ah, yàgg mar ñoom ñu ñëw jàppale seen mbokk seen xarit kooku nga xamante ni moo di caatu ngewal ngeen am combat bu metti combat bu nar a doy waar naka ngeen koy waajal waaw onze billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw bu ñu sant yàlla nag di julli sunante bi sant suñu ñaari waajur waaw di wax ne caatu ngiwél moo ñu fa tax a ñëw parce que suñu doomu nday la ñoo bokk benn écurie waaw ñu ngi koy ñaanal ndëkk combat bi nga xamante ne moom la am muy yëkkale nu mu tudd sax waaw Elias Birame day xaar Elias Birame day xaar waa dafa réeré mbir nag waaw dafa réeré mbir yaakaar ngeen ni combat bi dina yomb combat su lu gën a parce que booy bi xam na li mu entraîné ñun gis nañ bu baax li muy contact alliance biram day xaar day xaar waaw. yaakaar ngeen ni combat kenn du leen jiitu stade. dañuy dee stade ba mu fees jël ñëw ñëw xoola ñëw fecca daan tuus tuus mi daan daan bi barke sëñ Bamba. def cosaanu Lebu. noonu la demee ragaluñu loolu. waaw looy wax supporters yi nag. ñu ngi wax supporters yi discipline fair play yow ma dégg ñuy wax dal mbër mi mbër mi ñu nga suuf ñoom ñu nga sa kaw loolu jeex na mbokk waaw ah, dafa leer waaw yàgg maar caatu moo nekk noonu ci bunt bi di ko dugg si yàgg maar làmb ji commencé gul waaye caatu ngewal lu ñu gis fii mu indi ci mystique caatu ngewal lu ñu gis mu indi ci personne lu ñu gis mu indi ci ay mbooloo yàgg maar nee la le 19 incha allah du yomb ma ngay wis dox yàgg dafa mel ni caatu ngewal le 19 da koo pare yàgg maar làmb suñu cosaan yàgg yàgg maar waaye kenn du la presse la presse sénégalaise la presse en ligne maa ngi leen di ñoom ñëpp yàgg maar waaye yàgg maar lamb mooy suñu cosaan yàgg maar yaa ngi gis ñi ngi wis xorom si yaa ngi gis yàgg ñi ngi wis li nga xamante ñi ngi sotti li nga xamante ni moo di soow yàgg maar gis nga gaynde yi yàgg maar gis nga xale yi yàgg maar gis nga ah ma nga ma ngay ma ngay ma ngay jël na leget ga def na ci def na ci dugub ak ceeb ak xorom mu koy wis ci entrée ba Yagmar dafa mel ni ñu ngi stade Yagmar te nee naa li rek ci xew la ci euh, koñom la xewe waaye Yagmar laa boobu ndoon nii Yagmar ku ne laa mu ne mystique ku ne laa mu ne xarfa xuufa a yàgg le caatu caatu ngewal pare na a Yagmar Yagmar bi la combat bi la combat du yomb yoon waa Yoff dañoo ngemb seen doom pare nañ démb tey soo di caatu ngewal tuuroo sow sama xel dem na ci Moustapha Gueye sama xel dem na ci Gris Bordeaux waaye open press rek la nag barki yobal xiyaam la ko bar lambo bi ndooni caatu ngewal a ngoog te surtout mam mbaay laay ba caatu ngewal a ngoog ak kaala gu weex gi mu ci bopp bi yàgg maar lambo bi ndoo fees na dell lan ngeen di préparé pour le 19. waaw le 19 mbër maa ngi préparé lépp ñu ngi préparé ful la ñu ngi préparé jom waaw di ñaan yàlla rek may ko ndam bu bis mi moom ku baax la waaw luñ ko ñaanal moom day nangu barki yàlla di wax waa Yoff gépp nañ ko ñaanal seen doom la waaw. ñu gis épon presse bi fees dell ya est ce que yaakaar nañu stade tamit yéen a ko nar a feesal. waaw dina fees dell bu stade ba ñi ñëw nii sax du gaay rek des na ñeneen waaw des na yeneen yeneen camion waaw maa la ko wax. kon waaw le 19 stade dina xar ñaar caat caat rek avec caat rek géwal yëpp dinañ ñëw barke yonent bi. incha allahu rabbi yàgg. Euh, ñu gis ngeen ñëw def sañse def jongoma macha allah ànd seen mbër caatu ngewal lan moo waral présence bi fii. waaw caatu ngewal day sunu xarit di sunu mbër rek. waaw nekk ku yàgg ak ñun so dara ñaawul moom bu wootee bu ñu fekkoon ñuy nelaw dañuy yeewu ndax dereet ñu woo so dañ koy wuyu si tubaarkàlla macha allah. mu mbër mu gëm boppam kum lebal rek tubaarkàlla boo ko fayee dafa war a dellu taalibe Serigne Fallou la yaakaar ngeen ni le 19 combat bi dina yomb waaw tubaarkàlla ñun ragaluñu loolu ndax ñun ay mbayaar lañ so duñu xaat di pour caat rek bu jàppee day daan alliance Birame nee na combat bi yéen wax rek ngeen waa ñun dëgg du neex ñun ku ñu xam-xam ne ñun dañuy bëre ñun ñi ay jigéenam sax tubaarkaala boo téye suñu lu neex waxatuma la moom mbër mi. nga ne yow mi jigéen bu ñu téye sa tànk. damay bëre lu neex alliance Birame dañ naan ko na toog rek na def tekk rek tekk woon ko yoon sinon bu def reer rabax rek dégg ko cax. stade yéen a koy feesal wala waa alliance Birame ñoo koy. waa rouge noir yi lay doon ñun yof la ñuy jóge tubaarkaala allah rabbi Euh, yàgg ñu ngi nii ak coach Adama Ndiaye coach bi nga xamante ni moo yor euh, ki nga xamante ni moo di caatu ngewal euh, coach ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay seetloo bu baax a baax a baax. di coach ñu gis sa ñëw ak forme physique mentalement ambiance yu lool est nan ngeen di pare le 19. ah le 19 vraiment ñu ngi koy préparé préparation bu rëy si benn stratégie bu ñuy wax anaérobie lactique anaérobie lactique loolu. anaérobie loolu loolu stratégie boo japonais la quoi ñun nag suñu suñu secret bopp la looloo waral sax nga gis jëloow ñu ko poids donc dañuy soxla doole intérieur bi bon am na leneen ak leneen si yeneen match yu ñu liggéey si wàllu anglaise wàllu judo ñoom ay ndaanaan lañ jaat moom li tax mu ma sawar si moom parce que loo ko jàngal daf koy tari daal waaw ah, daf koy tari yaakaar ngeen ni combat bi dina yomb parce que ki ngeen di bëreel mu di alliance biram doon xale boo xamante ni macha allah am na doole aussi tamit te bëre bi am fi ci moom. effectivement suivre naa ko war nañ ma ay combat am mais xam nga technique boo gis am na tactique bon te ñun comme dañu yàgg si armation donc xam nañ nu ñu jouer ak moom xam naa ne bu bés ba daal moom dina xam ni liggéey nañ si moom bu baax. ci combat bi la la ci ci lan la lan la koy lan lay indi ko bi ci bëre wala ci ci li nga xamante ne moo di xeex. parce que moom la plupart dafa doon koo xam te dafay def dafay xaar bon te bu ñu suñ ko dégloo bu ñëwul dañuy dañuy liggéey ak moom si bépp anam de gan bu xeexee bu xeexee du ko arrangé donc euh, de toute façon daal lépp la lépp loo xam te ne laaj na ko préparé nañ ko. Euh, lan ngay wax supporter ak ñi nga xamante ne ñoo ko war a gunge stade le 19 incha allah. waaw ah, waaye vraiment ñëpp daal maa ngi leen di dékku ñu ñëwee discipline. waaw discipline jàppale borom bés bi jàppale kilifa ne parce que làmb dafa doon loo xamante ni ñu réew mi dañ ko soxla donc dañ si wane dañ si war a wane lu rafet lañ si war wane pour yeneen réew yi sax jàngat si ñun. donc maa ngi dégg maa ngi maa ngi digal bépp waa Yoff daal kuy dem na nga préparer sa ticket bañ fa ne di bourler bañ fa indi ay problème ñu gunge mbër mi mbër mi jël ndam di si jàmm ak salaam indiwaat ko Yoff waaw loolu laay dégal ñëpp incha allah jërëjëf. jaaral ko fan jaaral ay moroomam dem xool leneen. Mhm. mais autorité Yoff yi ñu ngi ci kaw wala yow wala yow ñu ngi lay jàppale wala jàppale wuñ la. waaw autorité Yoff yi xam nga boo limee ne ñu ngi may jàppale am na ñuy jàpp am na ñoo xamante ni mooy loolu mais xam nga ñi jàpp tamit mooy loolu ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax ñi jàppul tamit. xëy na dañ waragul a gula jàpp rek ndax ñaxu jàmbur moom loo si am lu ne sante ko boroom mhm. mais ñun ñu ngi ay Baay Faal yoo xamante ni même bu fekkee ne dañuy def cent cent sax jox ñu xam nga mu ngi ñuy jariñ quoi. nga ñëw gisuñu nga nga xaw a taayal quoi lan la. waaw non géwél la doon tëggal lan la non non géwél yi ma sax tëgg na lu neex xëy na mooy loolu xëy na làmb la rek. mais mooy loolu liñ gis tey mën nanoo ñëw stade gis lu ko dàq làmb la mooy loolu danoo nekk si làmb te làmb moom ku ne xam na am nu koy tegtale rek mooy loolu moo tax ñu ñëw géeme nii mais waayo xam nañ ne ñun ñu leen loo xamante ni day gàtt wala mais. sant daal bu baax di ñaan waa Yoff gépp ñu génne jàpp ci combat bi mobiliser dem esaat ma jàpp waa ji du ma ko daan ko ñu ñibbi si Yoff allah. mais date bi ngeen bëree kañ la. samedi laay bëree incha allah samedi. samedi le 19 sax day sori samedi laay bëri. incha allah waaw. mais say supporter fu ñu toll nii fa loolu ñu ngi ci ñun moom ku ñu xam-xam ne ñun ay mbayaar lan te mbayaar yi label la ñu ngi préparé Yoff gépp ñu ngi préparé waa Bambilor ñu ngi préparé waa Kër Ndiaye waa Kër Massar xam nga mafia alaaji paate bi ñëpp ñu ngi préparé daal gars yi ñu ngi waaj te dinañ ñëw stade dinañ gis caatu ngewel dina indi mobilisation lan ka daa gisee lu ko lu ko gën a lan moo ñu naan caatu ngewel luy caatu ngewel waa caatu ngewel juddoo ci ngewel màggee ci ngewel yaroo ci doon ngewel loolu daa matal lépp waaw mais mbayaar du xaddi mooy lan mbayaar ñu mbayaar yi ab label lan mbayaar warul xaadi mooy maa ngi koy wax signature ba keroog ñun buñ xaadee buñ bun mbayaar yi dañuy tàpp taab bu bés ba dinañ gis caatu ngéwél ak sañ-sañ ak ñëw dox ci kaw alliance birom du ma ko daan ko ci lu gaaw incha allah mais birom est-ce que xam nga ko bu baax waaw alliance birom nag ndaanaan la ndaanaan ku lu fatlil mais xam nga ñun moom li naan ñax du feeñ si taw mhm. mooy loolu ñun ay super ndaanaan lan te bu bés ba buñ jëflantee rek mhm. caatu ngewel xam nga gars yi dañoo mis leen si caatu ngewel mhm. muy pré combat ñu ne caatu ngewel tay mu dee mhm. mais bis bu demee ba bëre ba pare dañ naan jinne la wala dugg na fii génn na fii mhm. fii dina gën a garaaw incha allah doo ànd ak ay jinne non ànduma ak maa ngi ànd ak sama ay maam maam njare boo xoolee tey jii la tuuru maam njare muy sama open press lii rek wax la waaw noonu la demee mais tey looy tàggoo ak looy wax supporters yi ba bis ba waa di wax supporters yi ñu mobiliser wu kan nan daa def génn autorité yi yoof yi ñoom tamit gën a jënd billet yi ndax man bëgguma ay du yóbbu esaat ay six car wala ay cinq man damaa bëgg autorité yi jël ay plus de vingt jënd billet yëpp gars yi yéeg si oto yi ñu bëre daan ñibbi ndax xam nga ay xale yoo xamante ne tey jii am na lu ñu def ci làmb kon buñ amee lu ñu def ci làmb kon yoof ñoom dafa jog pour nu jóg jàppale ñu ndax xam nga caatu ngéwél instant yi kenn dootu ko présenté si làmb. lan ko tey si open press bu toll nii ak caatu Yoff ñuy say naataango. say dëkkandoo nga woote lu toll nii ñoom ñu war a ñëw surtout nii rek leen. waa gaay waa gaay yi xam naa dañ xaw a jàpp rek mais loolu dara mooy loolu boo leen gisul tey bis ba di leen gis incha allah. gaay yi ñu ngi déggante avant mooy ñëw mooy Modja muy caatu Yoff muy Malick ñaa déggante nan waxtaan nan daa am lu leen tee Modja daa nekk ci combat xam nga maa ñaar daa dem benn voyage bu ndaw caatu yoof tamit daa génne newul yoof xam nga mooy loolu di encouragé tamit gin bu a ay ah, dara suñu benn booy di leen wax ni làmb nii la gin ñu koy wax làmb nii la di na ñëw ànd ak ah, ama bu yoof gin samedi na ñëw gunge rakkam incha allah li nga xamante ni mooy naxari woon na ko yàlla mën naa def sam samedi mu neex ko ñu dem yàlla may nu ndam lu seedu dernier mot waa li may wax alliance biram mooy dernier mot alliance biram taxawal nga dëggal sa bopp ñu bëre làmbu xale man moom ku ne xam na ni jaatu caatu ngéwël reculé moom loolu kenn du ko wax man du ma reculé mbayaar laa boo taxawee dañuy daje dañuy rayante mooy li ma lay wax combat bi yow loo bëgg deret ji lu mu gën a bari gën a baax taxawal dëggal sa bopp naa la wax ñu rayante naa la duma naa la daan bu soobee suñu borom daa ngeen jëf merci beaucoup jërëjëf